ki nga xam ne suñu Bàmba wax na ne si faa u su dóori fi xol bi fi lislaam wallaahi xabdul jamaal xabdul kamaal mooy saafara bu mu mën si Ibrahima Fall ko waatal si yàlla na ak na ndax la ñu sa mbàkke ko jox moom si yàlla Fall kat bu ñu ko si génne ñoom ak muy lan liggéey joxe ko ñàkk ko na ko ñuux ñuqi boole ki raam ak i jooy joxe ngir lan ngir bëgg yàlla kooku mooy Cheikh Ibrahima Fall raw jam ñep taxaw ni leen ëpp doolu ku yalla bindi waat ak nongatoo xam ci jam ñep man fi si du jëw ku yàlla bindi wante ku ko jëw mu jéggale ko mooy abaru jaalu lahi wal murid abou jaalu lahi bàyyi góor ci yàlla borom ko ko gën tëdd mënoo ko xam ñu doon xoti dem ci pël yalla ñoo xam kat mu Cheikh Ibrahima wa li koy dindaru dindu yalla bëgg wax pour jaami xam kan moy Cheikh ibrahim fa da ne ma sama jaar xam lu ko Fall mu ne ko làq na ngeen mo yalla yàlla jinn at bi mu ci mam adam ak wax ma sama jaaga xam lu ko faal mu ne ko tudd naa jibril mu samilu im ak tëwli ak sabar ñu ko ma ko jom bo ma tuddu jibril mu ma sàmm njal waxte mu ko fal mu ko tudd ma bu ba ma tudd akaramatan ma nga nek sa xuntuma sa xuntuma sa sàmm bu labbe jaax lay ñew wax ak man ma wax ak borom mu def ah jaa ah dina sàmm njal waxte mu ko fal mu ko duma yalla me yag na ma wax ak borom muy def xuntuma sa sam ku nek xam na sayir bo gis baati mba def tojtale fo degg sam xam sa xel dem ci ci bàyyi fal muy borom sam fal te ndum mom moom sey rafal ibrahim khalilullah mu allah allahu sesab yàlla moo ibrahima mi ben kep kon koku da mission bu ko tax ñew dar dunya ndax bu doon wax moom Seera Fall fi mu gënee jamono diggante njëb bi ak wax ak njare foofu la gënee jamono suñu ndey bu Ndiaye di waajurum jigéen si mu farox ya di waajurum góor nga xam ne faale kajoor la moom Seera Fall nga xam ne faale kajoor ñoo yiri faale bawor ak faale ñàmbur bu leen wax wàllu buur moom Seera Fall mën naa nekk dammeel ak teen ci yax bu riche la bokk moom ndey bu ku nekk dégg leen buur bu sa ñëw di leen lempo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 wante jébbalu jébbal sa alal kër muy jébbal seen bamba la jël seen ñang ga lepp jébbal ko seen bamba ndax bu ngeen bëggee doom fa yalla da ngeen joxe seen doom ngir jëm yalla te mom jëf na ko ñu gis jox nga ko àddiyee gileem yu sa fi ngurlu sa fi soo koom soldaar sa ya joxe sa doom fa dilu faal am nag texe kon kenn moom see rafaal ku jëm fu sori nam fu lu bëgg da nango gàddu ko ko ci yak bu riis la ba ben ñu njëbi moy kër wax waxtu moy kër yaayam njaru moy kër lay bayam njare moy kër yaayam su ndey seenu njaay njare njare yi moy mooy kër baayam waxtu moy kër nday bayam kon kenn mom moom mum seere bu bokk ci yax bu ris wa day jël lu lepp takko fa ngir lan ngir ñew xettal si jamm ngir wan suñ bamb bi nga xam mo moo nuy jariñ saahiran wa batinan da olof nee ne saa bu foot bopam te suñ ba nga nekk si biir ay donga na ba ak siin wa suñ borom nday ba Cheikh Rafal ngir mu xatal ci suñu dégg ko si Moussa wax na mu tëdd guddi li si xaar ba mu xëyee ba tisbaar mas na xibaar on njëbbulam di wax ne yàlla ni ko mom moko ne kon koku egg na debu tëdd du ñew te jaam ñep egg sa borom man bëgg wante mom sey Fall egg na sa borom debu tëdd du ñew ba dégg ko de mu ne yàlla ni ko mom moko ko ne bamba mo la mom du jógee ba dem si sinte amul sinte tay ba Ndakaar foofu la ko sin Matar Touré sin Adama gey romb mu xam ne ñi gis na ki ni set mu laaj leen adoom fu ñu bayiko ñu wax ko tokkali mu ndax mën naa leen xaalis yi bëri ñu dëpp ma tàggu sama sëriñ dama bëgg nga ñaanal ko fi mu si jóge dañ laa ñaanal nga berte daara mais jóge fi dem feneen kenn musu koo na kon ñaanal ñaanal njëpp te la foo jublu yàlla fi yiw yàlla jéggu nee na ñaanal njëpp googu mu ko ñaanal ndax da ismu laay asam la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 kon kenn du moom te ndeem dañoo war ne sant Sëriñ Bamba ba feet ñuy faatu ndax ñu dër bi ñu ay tudd la ñu daa wooy xeetu jaam ki la goreel nag war nga koo sant sàkkantu mu laa nag sant dolli la ndax nee na ma defal benn fukk laa lay fay nga defal ma loo mënu ma fay la loo jomm nga lebal ma kër guddi laa lay fay foo neex de bandandalo leen foofu ma jublu fa la yiw yàlla yëpp jublu ne ko luñu diggantee bi ndax di mbàkk jot tànk mu séqi kano tàkk sa aras malaa kay mu xara boole naa ko ndax boo gisante sang bu baax bi jaami ko nga xam ne keroog Cheikh Fall bi mu duggee mbàkk jot da doon xar lu ñëw ba jàkk seen bambam mu ne ko tànkub yàlla laay topp bu mu dugg fii si seen bamba ne ko ndongale tànkub yàlla boobu ngay topp day bu xamoon fan la nekk doo ñu fekk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 sama pëstéef may na ma ma jaamu ko ba tënk fa la nga xamante ni moom laa bëgg muy baabul murgine ya yoonu murid suñ borom na ko moom seexu suñ bamba na ko ndongal kat ñoo bokk fas-fas ndax man kat bi may jóg dama waxal ki may seet muy gën di bindeef Seydina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam su ma doxee daa dundal fekkuma ko fi ma gis asamaan si ko doon tiim ma sëgg xool su si ko nga xam ne moom la doon dox su ma siggee sama pëstéef may na ma ma ma ma am si moom cër ba nga xamante ni moom laa bëgg saa borom nga xam ne kon sëriñ bu bëtëb sëriñ ak taalib bu mun la si xaar dana gisante koo fa la wax na ko nag bàyyi Cheikh Rafal dama lay laaj lii dafa bokk si sa jaayante ba ak seen Bamba sa Mbàkke Kajoor koo tàllal ay loxo mu ne barkeeb Cheikh Ibrahima Fall eggu suuf jël la mu lépp jox la ko mu ne ko Mbàkke mu ne ko sa baay baa xarañ keroog bu may jaayante ak sa baay sa Mbàkke Kajoor tamit cënkoor karaw wala mbaaram ñax mu may keral te jaayante mu ko moom si kaw suuf wante keroog bu ma sukkee jébbalu nee na suuf nga xam ne moo takk sama bëti oom yi nee na moo ma topp nii rek basiru ak ñett jékkoon julli ak ñàkk woo moom laa génne jaami xamuñu ko ma defin fukki ba ñu ko xam ëllëg ma xaw ko Muhammad moo ñu ko indi ab sëriñ ndax Ibrahima xalilaa jullit wóoru ba yàlla suñu borom ne wa taqasallahu Ibrahima xalilaa waaw suñu Bàmba mi ko doon saahir wa baatin lim ñu indi nañ ko xam kon kenn du moom moom Cheikh Ibrahima Fall loolu tax mu ne yomb xel la mëna o xel la mëna ci jëf ma ko gëna gaaw man Cheikh ibrahim Fall a ah, doom bu si mbàmb wootee def leen ndax li meur ci si ndagu dénkaane kat suma ko yëlee gëtt graaf bir bi sëriñ bi tudd ay yëfam di dox Cheikh Rafa nee koku bu guddi jotee sama kër lay ñëw may def dindi balaa fajar mu del a ah, doom li ma yor ci ndagu dénkaane suma ko yëlee gëtt graaf 75 ans la Cheikh ibrahim Fall dund ci sahir sin bamba 75 ans la dund ci sahir mak ñet at na ko sin bamba magé sahir ñet at na ko njëkk a laxoo si Mourou Moustapha Fall li mu dum si at moom si Mourou Moustapha Mbacke dum si at si Cheikh Fall Baye Góor li mu dum si at moom la si Cheikh Fall Gaynde Fatma dum si at loolu tax si misaak wax na ko si Mbamba taaw law Moustapha Cheikh Ibra taaw bay Moustapha ku dem diggante Marotaay dafa war nga faa doxe si Mbamba am nam Falilu Cheikh Ibra am nam Falilu ku xam na faale Falu mbaa ak mujjëm dafay torox si Mbamba am nam Abdoulahi Cheikh Ibra am nam Abdoulahi bul weddi kii ba ñibbi àjjanay taxe loolu tax bi mu gën a jëmoon sa jaare majj naa bindal turi naa Abdoulahi Abdoulahi ndax mën naa ko ndax mën naa ko ndax nee na ku mën see wax arawa sawara dox mooy bul wéddi kii bi nga tudd aj ne pexe suñ bamba am nam basir Cheikh Ibra am nam basir basir moo sa dem lekkal ba suur jégal ma koy toog di joxe ndax basir ak ba suur ñoo yam ba suur baal ak sin ak raa te lii si gën a jaaxal mooy kër gi suñ bamba dem tukki géej gi nga xam ne moo war a màggal gii yaa ngi suñ basiru waaye bi suñ basiru jigéen dafa toll ab diggante suñ bamba ne joxoñ dénkaane la maam noo dama tuut tànk li juddoo kat bu dee góor nañu ko tudde basiiru mbégte mi bu dee jigéen ñi tudd ko suñu nday soxna jaaretu nga xam ne keroog gëstu rafal dégg na ah daa doom sama Ndiaye wax ah si Mbamba lu wax moom day joxe leen dénkaane nee na soxna si bu ñuy wekkoo bu dee góor nañu ko tuddee basiiru mbégte bu dee jigéen ñi tudd ko suñu eh, soxna jaaretu nga xam ne keroog suñu basiiroom Cheikh Ibrahima Fall bi mu feeñee jamono moom mag suñu basiiroom Serigne Touba Cheikh Fall tudd ko ne tudd naa ko basiiroom Serigne Touba ndax kat doom gi sëñ Bàmba kat bu nee góor góor lañ njëkk wax kon góor lay doon kon dinaa ko basiram baay Serigne Touba nga xam ne basiram Cheikh Ibrahima Fall moom mag basiram Serigne Touba kon Cheikh Rafal rek moo dégg sëñ Bàmba kon kenn du moom mu ne sëñ Bàmba am nam saalihu Cheikh Ibrahima am nam saalihu noonu si saalihu ba ñibbi àjjana tax loolu tax suñu saalihu bu ngeen ma jiitalee dara luy yàq diinam mbaa lislaam su ma doxee def gisuma leen damay taxu nit leen su ma leen liggéey nag gisuma leen ma topp seen ginnaaw maa yéen ba kalam sëñ Bàmba wa sin bamba amna murtada Cheikh ibrahim amna murtada sol ñu mat nañu ri daa yàlla doon seen ba yalla doon seen gaay ne am ndax ñu fa li lii ñoo wax li du yalla lii du neen yalla la bu doon neen xabi nan bu yàgg barka mam cheikh rafal kenn du mom mom Cheikh ibrahim Fall juroomi doomi sin bamba ñu tok ci xalifa gi juroomi doomi Cheikh ibrahim Fall ñu tok ci xalifa gi mu ne fu ba ëllëg yow xaaku bar fa sin bamba sant am dund dina sant sama dund sa wet ga kenn du mom mom Cheikh ibrahim Fall ma ngi tuub kon ñoo barkeelu loolu wàccaay magal gi ngir jëmmi Cheikh Ibra Fall ji ngir ñu xam kan mooy Cheikh Ibra Fall ak Sëñ Bamba ndax kenn du moom moom Cheikh a Fall bu jëriñoo Sëñ Bamba nañ ko sant Cheikh Ibra Fall ndax Sëñ Bamba kat nee Ibrahima Fall huwa ismul Ibrahima Fall nee na turam rek miftaaxul lu kulli baabal jànnatil karaam turu Cheikh Ibrahima Fall moo tujji buntu àjjana ba bu ne bépp makkaan bu ne jaamoo yàlla nga xool sa kaw gis ab jant tiim la suñu bàmm ko si yàlla na jant boobu Cheikh Ibrahima Fall la teg Ibrahima Fall si fa suduri fi xobbi filam wallahi xabdu jamaal wa xabdu kamaal Ibrahima Fall di seen moom moom Ibrahima Fall maa ngi tudd bu baax ndogal Serigne Saliou lu ci jub ñu xam ne ndeysaan moom lu ci dëng ñu xam ne ak bëgg la rek faal waaw seen production sa kaw sa kalam barke maam si Ibrahima Fall da ngeen bëgg daal seen site bi yàlla na Serigne Touba si Ibrahima Fall defal lu fooxu seen jot waaw bañ leen a gis ma ngeen mel ni làmp Fall